Euh, salut tout le monde, voilà, je suis content de vous retrouver, comme je dis toujours. Donc voilà, euh, on va euh, essayer de répondre à la question posée hier euh, par euh, Fier du Rap Solinké, bon, du moins le compte s'appelle comme ça. Euh, est-ce que vous pouviez faire un sur les niveaux de réglage de volume pour enregistrer les voix Donc voilà, je vais essayer de répondre à cette question, mais Euh, bon je trouve question boobu kese peut-être dafa kii yooyu je vais en profiter pour expliquer peut-être sax nan nañuy defee voilà enregistrement directement noonu donc voilà euh, première chose à faire mooy ubbi benn dossier bon dossier bi ngay ubbi euh, supposons j'ouvre un dossier ici bon par exemple am naa dossier mooy def record je mets nouveau dossier je par exemple tuto voix hmm? je mets tuto voix euh, voilà dossier bi ins bii nii laa bëgg a prise je prends l'instrumental tac je mets dans le dossier j'ouvre Cubase bon si vous utilisez que si vous utilisez pas Cubase euh, euh, beneen dossier ngay jël mais de toute façon principe bi ça reste le même que ça soit Pro Tools ou yeneen yëpp c'est quasiment la même même chose donc voilà on va attendre que Cubase euh, s'ouvre ok qu'est-ce que je fais je fais fichier nouveau projet vide bu de amoo template nga def vide def ok choisir le dossier bi nga xamante ni moom nga bëgg projet bi dem man fii laa ko defoon fii laa créé dossier tuto voix par exemple tuto voix tuto voix tuto voix where is tuto voix ok tuto voix gi nii je mets ok bon dugg si naa ni je vérifie un truc enregistrement fii dama am 44 124 bits voilà instrumental bi fa la nekk et foofu laa bëgg enregistré am ñi nga xam te ni 48 nii enregistré 24 bit yooyu de toute façon bu fekkee kiiwul da ngay ñëw configuration da ngay ñëw projet def configuration de projet nga déterminer voilà 44 nga bëgg wala 48 ok bon man 44 laay kiiwee léegi je prends l'instrumental je le mets dans le projet ok beneen affaire bi xamante ni moom laay def instant dama dama jël noonu rek sànni beneen logiciel bu tudd Mixmaster ma dugal euh, instrumental pour mën ma tempo bi le tempo est à virgule zéro un donc virgule zéro un on va s'enfouir un peu on va prendre cent ok on le tempo je mets play ok bit bi moo nekk ni léegi li nga xamante ne moom laay def mooy damay ajouter piste bi nga xamante ne moom laa bëgg ñu enregistrer euh, je mets clic droit ajouter piste je mets mono parce que booy enregistrer voix mieux vaut nga enregistrer ko piste mono bon là j'écris voix voix mais am na lu des mooy entrée bi gis entre bi fi su ma bësee F4 damay def ni clic droit ajouter bus mono bon voix je mets voix ok léegi mono la nekk. ma ñëw fii ci voie bi nii ma cliquer ni entrée ba nekk nii ma de cliquer fii ñëw ci voie pour que entrée bi voie yi dugg sortie bi out la nekk bo léegi am na benn artiste bu ma bëgg a mu kii euh, testé ak yooyu noonu booy waxal ci micro bi ñu ki jéey la donc voilà. su ma defee F4 bi ah fii nii euh, je devais choisir au fait l' entrée un et deux l' entrée un. et 2. Donc, je vais mettre ça sur 2. OK. OK. Euh, waxal ci micro waxal. yow quoi. waaw test OK. waxal. testostérone pour enregistrer. en résumé lii laay def F4 bon enregistré xool créer piste après dugal fii ñëw ci euh, voix bi nii ok. je choisis l'entrée léegi damay jox artiste yi mu rab ñu xool lu mu quest que ça ne léegi artiste bi rabal mais bon par exemple boo damay play léegi nga wax pour ñu xool niveau d'entrée kii bi fii la nga koy xoolee niveau voix baa ngi nii ok ñu dem SL. ok vous avez remarqué que ni mi ngi saturé. donc c'est pas bon entrée bi dafa ëpp mën naa ko wàññiwaat normalement en moyenne au fait ces conseil nga nekk côté mooy dix huit décibels bon ma waat sama carte son bi ok ñu essayé waat ok mi moyen neuf baax donc donc tant que rougeul bon on peut que c'est bon te moyen neuf bu nekk nii bon am na assez de marge aussi mais comme lu mu leen wax moyen dix huit souvent la nit ñi kii dañuy conseillé mais mën naa ko ma neexee su ma neexee mën naa bàyyi tam moyen neuf bi pas tellement méchant ak yooyu mais on va essayer encore ñu wàññi demaatal. yeah. sa léegi fii boo xoolee am naa ba moyen dix sept le qu' que je fais bit bi laay wàññi pistam. dama koy wàññi tuuti rek pour ba artiste bi bon am espace bu muy dugg su may enregistré bon plutôt ña ña ña je mets n'importe quoi enregistré ok ñu dem. on va enregistrer ñu dem. yow. yow. sa xel su nga wax maa what new what happens. yaa ngi may jëli comme daab wala maa ngi sama daaman. wax dëgg xamaloo ma dara lu dul lu baax xanaa ñu defandoo ko dama ñëw. ok euh, remarquez aussi tam une chose mooy distance bu artiste bi nekk ak micro bi. donc loolu c'est très important. Euh, bon mun nga mën nga def écart kii bi teg sa loxo nga xool. diggante microbi bi ak kii bi. fii du micro waaw gis nga. bon normalement bu fekkee moitié mai bi noonu nu mu baaxee noonu baax na am na xam ne dañuy jël mai bi yëpp. waaw. pour euh, antipop beeg yooyu noonu artiste bi tamit warul coller antipop bi donc voilà yooyu c'est des choses à savoir bon ñu dellu siwaat ci machine bi su ma defee normaliser damay normaliser piste bi je mets n bon raccourci la juste ñu xool. sa xel si mbalax maa ngi rap wala baax na what's new what happens yaa ngi may jëli comme daab wala maa ngi wax di perte sama temps wax dara donc euh, mën nañu wax ni enregistrement bi baax na parce que gis nga boo leen gisee xoolee amul benn saturation donc voilà piste yi yëpp c'est bon amul benn bu ci dépassé voilà zéro décibel léegi dañuy essayer beneen enregistrement bi nga xamante ni au fait on va faire exprès mu ok ñu dem ah. bon je double ok léegi damay yokk kii bi entrée bi ñu dem. yalla yalla yalla yalla yéem a fajal ne ma yob la yéem faj ma ne ma jox ma bind nga lam sama loxo waaw waaw. ok du ma bëgg benn coono. léegi boo leen xoolee gis ngeen fii nii en fait lii mooy enregistrement bon normalement day carré gis ngeen tu as l' impression que ni piste yi day carré yooyu noonu parce que dafa saturé donc éviter ce genre d' enregistrement juste boo leen enregistré lii ngeen war a am warul carré bon donc faut sa doit être après ngeen mën koo traité correctement bon en gros peut être su may résumé. Euh, il faut que ngeen enregistré ko ci piste mono niveau d'entrée bi peut-être moins dix huit côté moins dix huit bon la war a nekk cest à de toute façon bu mu nekk zéro décibel bu mu laal zéro décibel euh, ngeen vérifier position micro bi ak artist bi bon ban position la nekk ndax jegewul de trop micro parce que lool c'est pas bon bu soree tam micro bi reverb bu salle bi day feeñ donc voilà c'est euh, c'est un peu ça bon li nga xamante ni moom faut pas oublier dugal tempo art tempo bi donc en gros bon loolu la pour enregistrement quoi. yow sa xel si maa ngi rap so what's new what happens yaa ngi may jëli daab wala maa ngi wax di perte sama temps man wax dëgg xamaloo ma dara lu dul lu baax. ah pourtant neex na de li mu rab nii baax na de bon Kidje c'était Kidje moo euh, <laughs> donc je vous dis ciao j'espère que cela servira donc merci. Et n'oubliez pas d'enregistrer. Dès l'enregistrer le projet. <laughs> Vous avez écouté, vous enregistré. Ok, au revoir, problème. Goodbye, ciao. Jayof. <laughs> <laughs>